tuubal yàlla sant ko jullit yoon te suñ borom xam-xam bu ñu teg na leen musuma wedd lu may tax a gudd fan musuma wedd lu may tax a wér musuma wedd lu may may xaalis musuma wedd lu may may wedd xam na kon nag xam ne nag daf maa féete foo xam ne fii mën naa man naa ne féete fa sax ñuy ñuy xëy ci loolu te yandu kon am na lu ma gën a néew ci li ma mu di ko mu di ko defar waaye la gën la ci gën a am solo mooy. Mm. ma di ko ñaan nag mu di ma may may wax mu di ma may. parce que boobu moom moom ah. moom ci sikki sakk. xanaa eh, toog nii rek di di ñaan sax di ko waaye lu ma tax a dugg sama nekk. loolu kenn mën loolu loolu loolu kenn mën ci dara moom. foofu fi yegg. looy takk naa la ay ay fas ak ak ak ak xam nga loolu loolu. nag weddi wu ma ñuy sunguf ak wekk yi de sama yoon newul ñoom. waaye alxuraan mi nga xam ne xam naa ne boo ko jëfandikoo sax mu doon dëgg. sax ñeme ko jëfandikoo. ndax damay damay damay bañ a def benn benn lijjanti dara lu lu may yokk wala lu may gii suñ borom defe ne dama xeeb li may defal. mu mu mu kii ma mu kii ma mu koy waxee. waaw am na ne ñu ngi wax. mu ah mën naa am koo xam ne kii moom moom lépp moom moom lépp di la defal lim lay defal nga xeeb ko di wut leneen am mu ne la gannaaw léegi li ma lay defal da nga ko xeeb bàyyi ma bàyyil ma téye ko te bàyyi laag loolu nga yaakaar ne moom bu ko defee nag nga nga sànku yàlla fu mu fu mu fu ba yàgg mu bàyyi la tàkk nga waaw yéen daal na ngeen góorgóorlu gis naa seen doxin gëm ngeen seen Tuubaa gëm ngeen seen Fallu bëgg ngeen ma euh, murit mi mu leen booleeloo nit yéen a koy topp ñu ngeen ko war a toppee euh, baax na euh, maa ngi leen di ñaanal bu baax yàlla loolu leen a jàppale sàmm leen itam ba fi ngeen bëgg a lu baax xéewal ci àdduna ak alaxira ngeen am ko bu ngeen demee ngeen mu ngeen nuyul ma ko ne ko ne ko ne ko maa ngi maa ngi maa ngi teg teg sama tànk fa ma ko tegoon rek ñoom ñi itam gis ni kii fi la fi la yendu tey mu daanaka moo leen fi jiitu bi mu ñëwee damaa defoon ne sax yéen ànd waaw waaye moom itam mu ngi yendoo waxtaan ak ñoom ngir bëgg ngeen góorgóorlu rek bëgg di wax liggéey bi rek moom lañ ci gën a góorgóorloo rek mooy dara du yàq. ndax fi mu nekk nii kat. Euh, muy Touba muy feneen ñëpp am nañ yaakaar ci ne euh, lu fi yàqu rek wala lu fi bëgg a yàpp rek danañ ko danañ ko defar. lu fi bëgg lu fi yàqu danañ ko danañ ko defar. lu fi bëgg a yàqu danañ ko téye. waaw wala man ak ñu mandal loolu nag day sa bëri jërëjëf buñ ko xamee bu bu fa fa fasuwaat takkuwaat waaw ndax koo xam ne kii dem nañ ba ba ba ba ñëpp yaakaar la ku ragal sax lu mu ragal bu bu bu la xalaatee rek jàpp ne loolu faju na loolu lam ci ragal du ko gis ku dem ba toll foofu ku ci bokk. war nga war nga war nga war nga guddi di tëdd di xalaat bu baax. tëdd di xalaat bu baax adduna li fi du du wax léegi amet léegi bu am solo. Mhm. wax la. Euh, danga ni moom mii seen jëwriñ bi itam. Oh, euh, noonu la. Oh. yéen daal bu ngeen demee. Ah, dafa am bis. ma gis ñaar xam ne yii dañoo amoon ay ay jaxasoo ci ci ci werante ci ci ci lu bëgg seen seen seen kii. ma ne commande li ma foogoon mooy yéen ñaar ñii ñooñu sax dañoo jege lool. lool lool jege lool. waaye seen dugub daan jafe-jafe. defe naa buñ buñ bokkul ndey yu mel noonu daal jege nañ ko ak bokk. ba ñoom ñaar seen diggante ma ne ko man lii damaa foog ne yéen ñaar ñii da ngeen a waroon a toog ñu jóge fële laal ci kenn ci ci des jàppale jàpp jàppale jàppale morom ji ba ba loolu du am. Uh-huh. man loolu la loolu laa doon nekk ci maa ngi doon nekk ci lu jóge fële ñëw ngeen ngeen bokk dal ci moom damaa jàpp ni yéen foofu a toog. waaye nag yéen seen jëm bopp ngeen ngeen ngeen ngeen di daje yéen. ba nga xam ne lu jóge woon fee sax bu ñëwee fekk. ñeme du ngeen ko mën a attaqué. Mm-hmm. foofu foofu ma ko. Mm-hmm. moo tax ay nit ba toll foo xam ne euh, surtout jamono ji fii mu toll li ñu war a boole mooy dëgër. Mm-hmm. ba lu lu lu ndax. bari na yoo xam ne yi dañoo ragal waaye bu ñu gisee fuñ potoxlu rek jaar te loolu lii tax duñ ñeme mooy ak ak booloo ak ak ak dëggal ak pas-pas waaye bu gisee lu lu yolom wala lu yox yoxi rek ñu def ko occasion daal yi te nit ñi waaw moom daal maa ngi leen di sant leen gërëm leen ñaan leen wax ne bu ngeen demee ngeen gën a takku maa ngi jàppaat seen jëw maa ngi leen di bàyyi daal suñu ci des nag mooy ci li ci des la man yëf yi lu ma ko tudd ku ci ne ci la bëgg moo koy moo koy moo koy moo koy wutal bopp na mu koy wute nag wuti nu rafet day doon wax ne du ànd ak ndax yoon wi du yoonu du yoonu tappale du yoonu pexe du yoonu liggéey la te képp koo xam ne ki gis nga ne jël na ci te jële ko pexe ak ak lijjanti hmm. bàyyi ko mu tàkk mu neex yàgg-yàgg suuf rek yoon wi lu ci waay am. gis nga ni ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa daf leen a seexaloon. bu yàgg. ba léegi ñu ngi gën di dëgër. ndax ndax la ñuy wute noonu lañ doon wute ñoom. te nañ war a amee noonu la ñu ku wute na nga war a wute nag amee na nga war a ame langa am dootu ko ñàkk. moo tax gis nga seex ñi ba léegi bis bu ne seen sëdd seen dañuy gën di dañuy gën di dëgër. gën di am te loolu it jógu fi suñ tubaab ko yor bu léegi ku ku def ni ñooña rek am ni ñooña am boobu boobu moom amul amul leen yàlla sàmm barkeel seen i mbir yërëm naa leen ñëpp amet dégg naa sa soxna si sëriñ bi nga soxna Gaye la. ku daan jox sëriñ Fallou addi yu bari. ñoo la gën a kontaan. lool lool lool. Touba ñëpp xam am na boo xam ne bii bis boobu. addi yi ñu daan joxe li muy rëy waxi keroogam yi ak pas-pasu keroogam yi moo ëpp lépp lu ndax dafa dafa boobu bali bi ñoo tàj ci Dakar ñu ñëpp di daw mm-hmm. fu ne waxuma jigéen ñi ay góor ñi sax dañ ñem dañ ñoom kenn ku ne daal yaa ngi wut foo foo laq soxna gayel ñëw taxaw ci buntu buntu këram ci jigéen nga xam ne daa waroon daw ni yëpp waaye moom daw waaye dafa ñëw taxaw ci buntu bi naan ku bëgg mu mucc ñëwal dugg fii ci kër gi. Ah. sëñ sëñ Fallou fanaan la. Ah. loolu la jë loolu la soxna Gaye ah. la keroog. waaw bi bal yi tàkkee ñu di ko wax ci la man loolu keroog laa ko mën a dégg. si dañ mënul te booba benn nit a fi mu di ko wax ne ma mu di ko mm-hmm. fonk te loo mën ko defal.

di sol mbubb mu set amul xaalis ku ko def xale mu gënal la lu nekk boobu ku ndaw mënu ko de ku ndaw mënu ko ñun ñu ndaw ñi mooy ñi nga xam ne defe nañ ne bàyyi faal kenn waru boppam dañ ñoo tudd waaye ñi nga xam ne eh, tey ñooñu mooy ñi nga xam ne nag Baye Fall moom. borom gis-gis du sol yére yu baax. day yalwaan wala muy fexe rek. nga dem ba mel ni daf laa gënal sa kooku. la ngay yëg ci moom du kaw gi du lim li nga ngi ci kaw. la ngay yëg ci moom. mooy la yëg muy la ne ci biir. waaw ñoom ñii am na lu ne seen biir loo xam ne naata ko na mënu yëg. ndax yàlla roog ci yow ndimbal. fas la yéene texeel àdduna ak alaaxira rek moo mën a yëg loolu. waaw loolu daal def ci lu baax dugg rek rawatina lu yëf yi moom sëñ bee ko mu yorol boppam moo ko moom boppam ku liggéey rek fi mu nekk nii man. Euh, yëpp ci Tuubaa yi mënuma cee tudd jox kenn ku liggéey lu lu ko jaar mënuma mënuma ku liggéey lu ko jaar mënuma mënuma dox ci diggante a ci ba léegi moo tax yëpp yi moom mu ngi noonu yëpp ci Tuubaa la ku liggéey lu la ci jox rek waaw baax